Nous avons un programme qui dañuy développer le transport maritime transport maritime dafa am yu bari yu ci nek. Euh, transport passager amna transport euh, tourisme amna transport euh, marchandise marchandises transport pétrole am na transport yëpp yu nekk ci biir te Sénégal dafa am 700 km de côte kon tey waroon nañoo mën a wax fu nit di dem ci Sénégal man nga ko ci dem par bateau wala nga yóbbu sa marchandise nga di ko yóbbu par bateau te loolu bu amee day wàññi coût yi day wàññi pollution bi euh, day day day nekkaale loo xam ne dafa am sécurité parce que xam ngeen ne euh, euh, navigation. dafa am sécurité sécurité bu mag la am li ngay dégg accident bateau ci àdduna bi bariwul. mu nekk sama famille ndax am naa ay employés marins COSAMA euh, euh, construction sénégalaise des activités maritime euh, xam nga ni ñun ñoo ko reprendre et en même temps man maa ngi gérer port portu Kaolack kon xam naa seen métier. et loolu nag day war a ànd ak ñoom ñu jox leen seen cër former leen. Euh, ba nga parce que métier compliqué et je pense que ce qui est le programme la diaspora xam suis programme qui agir euh, gestion de l'immigration et de retour moi négocier ak réew yi main d'œuvre ay quota yo xamné ni nii danañ mëna dem liggéey fa ba lañu dem ñom ñom lañuy ñuy yebalal ñu ñëw fi ñu former ñoñu ci niñ bëgg ñu liggéey mais durée de contrat bi day doon maximum 5 ans parce que suñ sañon tamit dañu yóbbu suñ doom yi ñu tok fofu di liggéey tok fofu mais dañuy ñibisi bu ñibbisee état bi jàppale leen bañ mëna développer ay projet projet yoyu nak ci secteur bi ñu doon liggéeyee ci la lay jappalé diggante ba nga fa nekk tamit ambassade bi day nekk sa kër lépp loo soxla ci wàllu kayit ci loo mën a doon rek ambassade yi dañ koy transformer mu nekk ambassade des bureaux économiques yoo xam ne li ëpp lu muy toppatoo day toppatoo sénégalais yi nekk foofu ci àdduna bi yëpp nag loolu su ma ko waxee moom ci àdduna bi yëpp en même temps tamit di leen jàppale teg fa ay programme yoo xam ne nii képp ku bëgg a ñibbisi ñu jàppale la ba nga mën a am say logement ba nga mën a ñibbisi investir def développement fi nga xam ne ni tamit du tee da nga di dem ak a ñëw.